asalaamaaleykum mbokk yi ñu seetaan ci seen euh, vingt 28 Pro TV ñu ngi am mbégte ànd ak yenn comme ni ñu koy euh, tàmbalee woon rek ci spécial tabaski 2018 euh, di benn édition boo xam ne ni dañ koy baaxee sunu mbokk internet yi ñi nga xam ne tamit ñu ngi seetaan partout tamit dans le monde ak ci fa moom mooy ci biir réew mi ñuy continuer yéen ak waxtaan bi ci maanaam visite yi nga xam ne ñu ngi koy def ci côté des chefs religieux comme tamit chef de service wala homme yi ñu ànd ak yéen ñëw nag fii nga xam ne moom mooy Touba ba tey ci moo du baara Dolly ñu koy ziar di ko dalal gannaaw bi ñu ko bàyyeek mu nuyoog mbokk yi ñuy seetaan. waaw maa ngi ci nuyoo bi Serigne Mountakha Mbacké Khadim di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool ci wér ak sunu waajur Serigne Bara Dolly Mbacké di ziare bépp jullit. Euh, ak bépp murit boo xam ne nii ak foo mën a nekk ci réew mi ak bitim réew ñu ngi lay siyaare euh, di leen wax ne bisimilahi di leen dalal jàmm fii ci suñu biir kër. Euh, loolu gannaaw ci présentation bi ci nuyoo bi buñ ko bëggoon a xam ci maanaam lu toll ci benn simila moom mooy kan sëriñ Modou baar waaw sëñ Modou mën na mënoonoo wax ne sëtu sëriñ Tuubaa la di nit koo xam ne nii tamit. Euh, ku ku yàgg yëngatu la euh, ci wàllu politique euh, waaye li jiitu mooy maanaam wàllu dina ji nga xam ne tey bu ñu dee wax ñu ngi ñuy mën a adressé ci kilifa diine yi nga xam ne ñu ngi bokk ci réew mi ndax ngir jëmmi sëñ tubaa ak loo xam ne it maam yi liggéey loolu noonu ko sëriñ Touba. beneen bi ci des it muy doon sëñ Modou Bara Dolly di nit koo xam ne tamit ku yëngatu ci wàllu politique la ku yëngatu ci wàllu social la koo xam ne tamit ku yëngatu ci wàllu bitim la. Mm-hmm. alors euh, message bi nga xam ne moom la ñuy euh, tàmbaleeg yéen ci waxtaan bi moom mooy euh, discours bi nga xam ne donc euh, xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér def na ko discours boobu noonu yow ban njàngat nga ci am. waaw liñ ci deera jot a leeral gannaaw bi ñu ko ñaanalee mu yàgg fi discours la boo xam ne bu am solo la discours la boo xam ne bu tënku pas-pas la. bi ci jiitu mooy pas-pas ndax wax na ci lu bëree bëri egg ci wàllu nit ak ngëmam ak pas-pasam kon loolu danoo wax ne lu ma mën a doon ci àdduna rek lépp lu nit di def mu di bu fekkee wàllu gëm yàlla ak lu mën di doon bi ci jiitu mooy pas-pas pas-pas nag ci la nit mën a defee lu mën di doon muy jaamu yàlla muy sa wàllu liggéey ci sa àdduna lépp luy war a mën a jàllale nit rek pas-pas moo koy lal ak ngëm-ngëm ci sëñ bi wax na ci lu jëm ci pas-pas wax na naka lan war mën def pour sunu àdduna nak lan war a mën a def it pour ëllëg sunu alaxira ca it wax na ne tamit dañu fee indi ngeen ñu jaamuñu nga jaamu sa borom tabaraka wa taala kon yooyu yëpp day tënk na ci eh, discours bi complété na lu baree baree bari eh, képp koo xam ne ne ab jullit nga ci fànn goo man di nekk Euh, même ba nga xam ne ñi nga xam ne sax duñu jullit a ah, kenn ku ci war na ko war a mën a gis seen bopp ci discours bu mel noonu mm, muy lu ma bëggoon laaj euh, ñan ñoo waroon a déglu discours boobu loola wax nga ko muy képp koo xam ne ku dul jullit sax ci nga bokk mais muy soññe tamit euh, askan wi ci ñi maanaam ñi gën a maanaam wàññi li nga xam ne moom mooy jàmbat bi te maanaam jublu ci liggéey bi doyloo sunu borom bi subhaanahu wa waaw foofu li fi mën a jàngat mooy wax na dëgg ci beneen côté bi nga xam ne te mooy bi ëpp jolo mooy yàlla bu la defalee ak wér def la itamit nga nekk ci kaw suuf ba war koo mën a jaamu kon njàmbat yooyu it dafa war a doon loo xam ne ci ab jullit doonu nu gën Euh, jullit moom la ko war mooy waxtu wu nekk sant sant lu suñ borom euh, dooleel wax na ko euh, la in sakkartum la zidanakum wa amma bi ni'mati rabbika fahdis kon jàpp na ne tamati nit ki fu mu toll tamati di sant suñu borom ngir mu doole ko di sant tamati nit ki ngir tamati jaar gi xam ne suñu borom jaareel na ay xewal ci moom mu doole ko waaye tamati wa amma bi ni'mati rabbi rabbika fahdis yooyu muy di waxtaani tamati xeewale suñu borom it lu ci am solo la kon nit ki moom daanaka ay tënk-tënkam Euh, li ko ëpp solo mooy fu mu war a nekk rek war naa am ak cant même bu ko demoon ba suñu borom teg ko wéridis wala lu man doon it war naa delluwaat santaat suñu borom tabaaraka wa taala ci bàyyi njàmbat yi loolu moom euh, tënku ni ci lu bëree bëri bëri bëri gannaaw message xalifa général des mourides euh, gannaaw tamit ci yenn ci ay kilifa comme ni nu ko waxee ci message yi ñu joxe ci maanaam xutba yi léegi dañuy ñëw nag ci sëñ bi en tant que moom bala ñuy dugg ci social bi nga xam ne yaa ngi politique bi nga tàmbalee foo ko tàmbalee ak ci kan nga ko tàmbalee politique bi njëkk a tàmbali mën noo wax ne parce que ñu ngi ko tàmbali 88 89 jamono yooyu Cheikh Abdoulaye Lahat mi ngi fi euh, ca jamono yooyu it élection yi ñëpp xam na ne am na nu mu demee woon ba baatu ndigal juddu woon ca jamono yooyu jamono yooyu fekk na ñu ànd ak président Abdoulaye Wade euh, toujours dama koy wax ci yu bëree bëri bëri ñu ñu ci bëri bu ne sañ Bara Dolly rek euh, muy suñu waajur ñëpp jàpp na ne ci foofu lañ tàmbalee politique waaye ñun ci biir lu mel noonu fekk nañu jiitu nañu ci biir PDS ndax wax naa ne 88 ba jëm 89 egg na ba tey boobu sëñ Baara Doli sunu waajur euh, socialiste la woon euh, mook Serigne Modou Bousso Dieng yàlla na mi nu tuddee yàlla na yàlla ko ay leeram euh, ci jamono yooyu sax egg nañ ci boole ma ak ñoom ban woolu ma di wax ne ay Ablaye Wade la ndax jamono yooyu 89 meeting bi Ablaye Wade def Mbacké maag ku ñuy wax Fallou ba nekkoon Bogo. fii laay yëpp ay ñu bari ci ay politiciens ay ay responsable ak militant yóbbu leen boobu man maa représenté woon au niveau di Touba ci meeting boobu ñu defoon Mbacké fekk boobu ku nu wax euh, Abou Boussa ak Moustapha Tokola ñoo fa nekkoon jamono yooyu sëñ daa ci Mbacké Mbacké ku dëkk Daaru Musi boobu laa gis euh, jamono yooyu mu daan jàppale Abdoulaye Wade kon maa ko ñaareeloon ci jamono yooyu ci lu bëree bëri ci histoire sax lu tax dégguñu ñu ba léegi si mën na wax ne jamono yooyu am na ay yëngatu yu bëri bi ndigal li amee yu amoon waaye euh, gannaaw yàlla sama xarit laay tooñ sax à passage muy Mor An Gueye bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ñëw wax ak man dama lu yàgg-yàgg meeting bi bul ci jël kàddu ndax boobu sa Abdoulaye joxe na ndigal kon lu mel noonu fekk nañu ñu yëngatu ci politique tey photo Abdoulaye Wade ba ngay gis sëñ kër sëñ Bara nekk symbole PDS ah mën na noo wax ne ba ma fa amee am nekk si booba mi ngi nekkoon photo baa ngi nekkoon ci suuf ma taxoon ko fa kon yooyu yëpp ay la yoo xam ne nii mhm. ci jaar nañ ci euh, ba nga xam ne tamit jamono yooyu bi ñuy bëgg a egsi 2000 euh, ndax 90 yooyu yëpp ñu ngi ciy yëngatu ndax 88 la wax bi ñëwee ba nga xam ne 2000 euh, jub si na Euh, ci diggante boobu fekk nañu def sëñ Bara député à l' assemblée nationale def ko assa président euh, vice président assemblée nationale. Euh, fekk ñu it ñuy tourné di tukki boobu ci ay jamono ndax luy bëree bëri ci bitim réew yàlla dogal na it daanaan fa dem ci jamono yooyu bi nga xamee ne egsi nan 99 maa ngi fàttaliku sama benn ndaje bu ma amoon ak président Wade ci hôtel bu ñuy wax Concorde l'Alfayda bi nekk Paris jamono yooyu it yaakaar naa maa ngi woon ci ay mbir yëngatu yoo xam ne. Euh, am na yu bari yu ma doon yëngatu ba nga xam ne euh, Ablaye Wade recevoir naa ko fa bokk ci kanam ku ñuy wax Pape Samba Mboup tey jii ak alin Diop mi yoroon chargé mission jamono yooyu it bokk na ci la ma président Wade waxoon damay ñëw ci def si campagne ci 2000 ndax octobre 99 la. la la euh, la ko recevoir Paris Concorde de l'Alfayda mu jë mu jege Versailles bi nga xamee ne wax ne day ñëw boobu iddi ak Moustapha Niasse ñoom ni ñu koy woo mais moom moom ci boppam. yurut ay moyens pour ñëw def ci campagne bi ca euh, en bu ko defee Abdou Diouf day day day jaxase kii yi du gagné kon jërul sax mu ko ñëw waaye ñoo ko sonal dana ñëw ci jamono yooyu maa ngi woon ci ay yëngatu ba nga xam ne ci ouvrir bu ma ko ouvrir na ko yi may kii bu ko suñu borom sotti la sa campagne donte 500000 dollars ci jamono yooyu danaa la ko jàppale kon sañ sëñ bari bu Dolly moom yàgg naa yëngatu ci politique it yàgg naa yëngatu ci yeneen domaine suñu borom dogal mbir mooma doon yëngatu suñu borom dogal sottiwut Euh, bi mu wut ma ñibbi si waat Sénégal bi ma ñëwee laa fekk jamono yooyu euh, yarxamakallah euh, ibëggee yàlla yàlla yërëm ko ñu nekk di yëngatu mu nekk ministre du jeunesse des sports mu xaw a dang lool mu xaw a kii ci la formé woon lu toll ci 200 personnes ci ay ndaw ñu ànd fépp foo xam ne nii élection yi ñëw na fépp foo xam ne nii ay yëngatu am na fa ci ñu bëgg a néewal doole président Wade ay sëriñ di joxe ay digal na fii ay kenn du fi dugg ah, ci seen di dëkk boobu daanaa ànd ak xale yooyu ñaaj foofu dugg foofu ah, lu fexe ban wateel Ablaye Wade ci jamono yooyu it Cheikh Mouhamadou Mourtala Khadim Rasoul yàlla na yàlla yokk ay leeram ah, am na ay yëngatu yu bari yoo xam ne chaque buñ mësaa julli timis ba noppi damay woolu ma ñëw ma toog maa ko daan wax campagne bi fii la jaar kii wax ne lii kii wax na lii ba ci jamono yooyu bu ngeen fàttalikoo sax sëñ Modou Kara am na déclaration bu defoon man mii maa ko maa maa defar poste ko ah ak euh, kilifa euh, sëñ Modou Bara Dolly moom yàgg naa yàgg naa yëngatu ci politique kenn lay ci acteur politique merci beaucoup ci histoire boobu noonu baatub transhumance euh, buñ ko déggee moom mooy lan waaw xam nga transhumance euh, dama ni koy wootee euh, ak ni muy demee dafa bokkut mhm. dañ koy war di xaajale ndax transhumance dañu jàpp ne parti pouvoir bu daanoo rek képp ku dem ànd ak moom transhumance la ah loolu lañ xalaat waaye dama yaakaar ne parti dafa am lu muy doxee ndax même parti day daanu continuer di liggéey di dem ñuy eh, ñuy ñuy yeesalaat ay ay ay bànqaasam waaye nag tey dama lay laaj même bu dee ci journaliste bi wala ku man di doon wala benn directeur de société wala même même wàllu diine sax nit tey da nga gis kii nekkub sëriñam ëllëg bu ëllëgee te xëy na gisutul lu ko ci doy mu dem jébbalu ci keneen ah tey jii en ah, journaliste bi da ngay nekk tey bi bi télé nga dem ba yàgg wala rajo bi gisutoo ci sa bopp da ngay dem defi beneen ba ci site bi ngeen yore tey bu ngeen demee ba gisul seen bopp da ngeen fay ah, man pour man li ma gëm man loolu laa gëm en tant que nit ñi di ko bàyyi xel parti même bu daanu wala mu nekk ci nguur da nga gis ñoo xam ne nguur la ne amee dem ba yàgg duñ ci gis seen bopp uh-huh. mais dañuy démissionné mais nag attends foofu it dama jàngal ne bu demaatee ci beneen parti uh-huh. ah, mais danaan transiment mais pour man euh, nit ki moom euh, yàlla suñu borom tabaaraka wa taala mi ngay mi ngay mi nga gëm sax di ko jaamu guddee ba bëccëg ah, ñu gëm ko ak rasulullah ak sëñ Tuubaa euh, jàpp naa ne danga nga ciy gis sa bopp boo ko jaamu sa bopp yërmaane yi ëllëg nga ci yaakaar bu doon doon loolu kay julli yi ñuy def sax ak yëpp yooyu bu ma dégg bala muy dégg ñu ñaan diw day dóor di dóor mais la àdduna lépp ay dóor <laughs> la foofu dama fii leeral tuuti parce que en général li ngay nit ki lépp lu muy def boppam a tax ah ah intérêt personnel gi ñuy wax intérêt général ñu naan intérêt général mais intérêt personnel bu ci duggut intérêt général màgg na ndax da nga ciy dugg yow ci sa bopp mu soog nekk intérêt général waaye boo ci gis sa bopp mu tudd tudd intérêt général parce que manqué nga Euh, man de man sañ Modou sama philosophie bi ma ci gën mooy parti APR bii ma nekk. la ma déedéet déedéet la ma recevoir au palais di diggante 17h ba 21h maa ngi palais ak moom. d'accord muy ñëw Touba. Ah, waaw euh, euh, foofu foofu dama la fiy wax ne la. la ma wax ak moom ak lu ma di doon même parti bi tey di APR su ma seetloo ba jàngati jàngati gisuma ci sa bopp lu ma fi def. am xam mem bu continuer gagné dama dama koy bàyyi dem seeti beneen parti bu gagné nekk au pouvoir sama gëm-gëm politique loolu laa ci gis. politique it jàngat boobu laa ci am. d' accord sa philosophie xaw na convaincre mm. euh, tuuti mm. ñenn ci ñi nga xam ne ñi ngi seetaan peut être ak man mais damay ne kon loolu moom moo waral sa transhumance sa fidèle compagnon gis nañ ko gis naa bi may dugg sa kër des photos de souvenir ak Karim Meïssa Wade euh, bëri na ba léegi ñu sa xarit la kon. waaw xam nga Karim Wade danoo bokk bàyyi bokk bàyyi. man dafa am jàngat bu ma am xam nga tey euh, boo duggee sama kër da nga fiy gis photo président Macky Sall yu bari danga nga fiy gis Karim Wade yu bari da nga fi gis ñeneen yu bari da nga fi gis même om om homme yeneen homme d'État yoo xam ne sax euh, bokkuñu ay parti ah ay socialiste ak yeneen a yeneen yooyu ay souvenir la yoo xam ne day des guddi yi ñu toll président Macky Sall laa àndal di ko jàppale fas yéene tamati mu am beneen mandat mais euh, yàqul dara nag la nga xam ne passé woon na parce que même tey am na souvenir yoo xam ne ci bu ngeen duggee ci YouTube wala presse bi ñaata souvenir nga gis diggante président Macky Sall ak Abdoulaye Wade yoo xam ne nii daanaka wax nañ ba ay rongoñ ji tuuru mais ban demee ba déggootu jub ci politique président Macky sàll dafa jël aw yoonam kon nag au niveau du même euh, Karim Wade ak PDS damaa dem ba déggootul maak ñoom mënatumaa def ak ñoom du caagin danoo daanu ma xool ne man gisatuma ci sama bopp samay yeneen i frère a ngi ci nekk di ci gisee bopp ma bàyyi leen ko dem xool fu ma gisee sama bopp affaire gi ma nekkit bu ma ci gisu sama bopp lu ma fay defit dëgg la yéen ñi seetaan 28 Pro TV ba tey ñu ngi ànd ak di dalal nag Serigne Modou Bara Dolly euh, nekk ci maanaam mouvance présidentielle euh, dañuy daal di ñëw ci discours bi nga xam ne nii le président de la République Macky Sall def na ko muy mu ne dialogue bi jeex na léegi li des moom mooy dem ci élection yi euh, yéen avant ngeen di dem ci élection yi se rencontre bi nga wax audience palais bi waxtaan ngeen ci loolu avant muy ñëw ci Touba boo xam ne dafa bett nit ñi waxtaan ngeen ci maanaam euh, préparatif yooyu. waaw loolu loolu bala ñooy dikk ci audience bi préparé ba muy li nga posé njëkk question bu njëkk bi euh, muy maanaam dialogue bi président dialogue bi mu yaakaar naa depuis mu toog ba léegi si ci réew mi mu ngi woote dialogue boobu euh, mën na wax il y a deux ans même quatre cent quelques personnes yooyu demoon ca palais nga xam ne boobu waa PDS ñëpp nga ca woon. Euh, ci jamono yooyu man mi bokkoon naa ci quatre cent quelques personnes yooyu nga xam ne dem nañ fa bu guddee fa lool. kon jàpp naa ne bam dalee woote dialogue bi mi ngi bëgg a yàgg wax na dëgg nag woote na ko ban egg foo xam ne nag moom foofu moom weesati nañ loolu ah ña cay wuyu wuyu si nan ña ca wuyu ñooñu moom yaakaar naa ne pour man jàpp naa ne Sénégal sax waru leen a ñor ndax man li ma gëm ba gëm ko mooy. comme man di doon doonte ñu bokkuñu ay xalaat da ngaa woote lu jëm ci Sénégal en tant que président de la République président de la république moom PDS baak ñëpp di bokkut parti sax ña ci biir buñ ko nangoo buñ ko parce que kon jàpp naa ne man damay d'accord toujours ci woote dialogue boobu bu amee da ñëw toog suñ waxee nga ne lii ñuy wax d'accord ma ci ça n'a rien boo génne ak la ngay def parce que boo ci d'accord d'accord ci kon ñàkk wuyu dialogue boobu rek pour man ñàkk teg fenn Sénégal yi wala ñàkk gëm jimmi réew mi la man koo euh, euh, man même parti politique bu ñu introduit woon sax ni woote ne ñëpp la woote damay dem wuy ji ban PDS bu woote woon ne ñëpp la woote ah limalu ko ci ñu nekk ay parti démocrate yi pour Sénégal yi yëpp tey ñu demoon ba yor am réew ah ma bokk ci bi arab damay wuy parce que dialogue la réew mi moo leen war a mën a ñor kon jàpp naa ne président Macky Sall la ko ca waroon moom def na ko ca kooku jël loolu jeex na ñu jëm ci ay dialogue waaye nag dafa wax wax bu am solo allahu tuuti mun ko mënta saabu xam nga sëriñ bi ñu bari xamuñu président Macky Sall man bu ma doon wax parmi sénégalais yi nga xam ne xam nañ ko ah, du ma ne ah, xam naa ko bu baax a baax waaye am na lu bari lu ma xam ci moom ndax ànd nañ ci biir PDS ci lu bari ànd nañ ci bataay yu bari ànd nañ 2007 ba mu nga xam ne waxtu wu ne guddi ak bëccëg moom ñoo koy nekk ànd na nit ci bi mu génnee ci góor nguur bi mu nekkee di am ay problème biir PDS ba ni ko dàqee premier ministre mu nekk président assemblée nationale jataay yu xata xat xat yu ne nekk nañ ko waaye maa ngi lay wax dara benn baat bu mu wax boo xam ni bu ma ta bàyyi xel la day nit ku gëm yàlla lu ko nit mën a waxal moom wax lu ñaaw doo ko dégg ci gémmiñam nit lay ku gëm yàlla nguur gi moom nit ñi ñooy wax di sonn di def waaye lu ci bëree bëri moom gëm-gëm bi mu ci am ci yàllaa ko jox yàlla ko mën a xañ kooku moom dama dama dama koy leeral Sénégal yi mu ne am na fu ma ko mas a wax maanaam nit ñi ñooy sonn nit ñi ñooy defe pression mais président Sall mais ma gis barki démb mercredi ñu nekk pendant ñetti waxtu ci bala bi man ak moom képp kenn ñu rax muy directeur de cabinet fi nii ñu nekk bokkut a fi mu nekk fi mu nekk mooy fan mi ngi liggéey ci réew mi li ko war mi ngi koy def waaye nguur moom lim gëm avant mu di ko wax nii ñu ko dégg mooy yàllaa ko jox yàllaa ko mën a xale lu ngeen fa waxtaanee. waaw li ñu fi waxtaanee. Eh, lenn la ban la ko a dégg coordination bi ma ne lenn rek eh, eh, mooy li ci ëpp solo ci liñ waxtaanee. Euh, ndax du lépp lañu war a mën a wax yaa mhm. parce que am tànk sëriñ bi homme d'état la ay deux minutes yooyu xam la xam nañ ci yàgg nañ ci waaye liñ ci mën a wax rek mooy ku gëm yàlla la gëm na ne suñu borom moo ko jox nguur gi moo ko mën a xañ euh, gëm na ni tamati li war mooy liggéeyal na Sénégalais yi ala kulaalin lu man a am it moom histoire marqué na ko ba pare euh, parce que cinq ans yi mu def dëgg-dëgg àndoon na ak Abdoulaye Wade du caagi ne danoo ku liggéey la ci réew mi pendant douze ans waaye nag 5 ans yi tamit ci na 12 ans yooyu ci wàllu ay ay ab liggéey kon jàpp naa ne tamit kon histoire du Sénégal marqué na ko d'abord ba pare waaye it euh, li ñu waxtaan it mooy parce que man xëy na ñu bari jàpp nañ ne tamit ci ak di ko gëmloo gañe nga tubaa wala gañe wu tubaa du tax Touba nangam man damaa bokk ci ñi nga xam ne damaa gëm na ñun war na noo mën a gañe Touba man dama ko gëm gëm-gëm nag laay wax waxuma ci ay ay ay kii mais lu ma gëm la parce que kii fexe ba teg fi euh, socialiste yi indi socialiste yi jëlee leen fi ak seen doole ju ñu yoroon teg fi PDS tey tey boo demee ba nga xam ne beneen parti euh, ñëw na ah nekk parti pouvoir liggéey fi li mu fi liggéey ci dëkk bi am naa gëm-gëm ne am na yoon wu ñu koy jaaree bu ko defee élection yi di ñëw mën na noo war a ko war nañ ko mën a gagné ndax la fi nekk ci ay responsable politique au niveau di parti moyen su présidentiel muy allié yi ak benn boo ko yaakaar bari naan bare goo xam ne ëpp na ëpp na dayoo Euh, kon gëm-gëm boobu nag man laa bokkuma ci ñi gëmu naan lan wàññitoo bi wala ñu def naan man damaa gëm ne yoon wi nga xam ne waxtaane nañ ci tuuti ma xam ko ca am lu des lu ñu ci war a waxtaanee am lu des xam ne war nañ ci waxtaane ak responsable bi muy unité bi ma doon woote mooy cadre bi ñun ñëpp ñu ànd nekk benn moom it yoon wam war a jaar mu jaar ca ah kon gëm naa ne élection yi ñëw waa au niveau du war nañ ko man a gañe beneen question bi ci des it nga dikk ci bi nga mujjee léegi nii euh, muy wax ko muy coordination bi ah, ah mais man du ma ne man mi man mi gëm ne ku ma ko jox ma gañe ko damaa gëm ne kay ku ma nekkoon coordination ñu may déglu wax nopp parce que nit ñi dañuy jaawale ñaar ci histoire ku jàng mat la bu faw seen ni la ci Serigne Touba wax nga gëm ko gis dëkk bi ni muy doxee Serigne Touba kon bàyyiwutoon politique bi sax bàyyiwu ko woon nit ñi nag day am lu leen arrangé ñu nangu ni bàtti na am lu leen arrangé duñ ko nangu waaye fa mu baari doli au di kii politique ci Touba ci Serigne Touba waajal léppam ngeen xam ne am na même bu dul politique kese sax am na lu ci nekk. ah ndax ci histoire euh, ci histoire politique ci biir tubaa gii am na fu mas a am sax ci Darou Salaam muy sëñ Omar Mbacké waaye ci unawu di tubaa gii ñu taxaw député bu nekk opposition euh, euh, gañeel parti opposition ba nekk au muy sëñ Bara Dolly tey bu demee tey élection yi di ñëw démb la ma ko sëñ Bara Dolly wax nee na président Macky Sall yow bu la fi tegoon. ci jamono yi def législatif da ngay gagné élection yi loolu nag moom sëñ bi ko wax wàllu bat moo xam la tax ma wax moo ma wax ko waaye ban ko defut it fi teg muy ay doomam lan samay rakk lan gagné na élection yi loolu tegtal la kon nag tey damaa gëm ne coordination bu mu ngay bu noo ko tegoon it ma euh, euh, ma gagné ko am na lu ma dul nangu <laughs> loolu nag lu ma dul nangu moom mooy am na ñu bari ñu ma nangu ñu teg leen fi jàll na am na yeneen yu ñëw euh, xam nga lan la man damaa gëm ne fii ma toog kenn gëm placé pour war koo mën a nekk man ci man li ma gëm ndax bu dee mbokkum sëñ Tuubaa moom la nekk avant tout bu dee beneen bi ci des mooy expérience am nañ ko politiquement. ci dëkk bii ñëpp xam na ne am naa engagement ah. Eh, eh, bu dee xamit xam nañ ko ca am na masla ak nit ñi kon waaye nag dutu ñu nangoo tamit ànd ak eh, à la passage parce que man li may wax lu ma gëm lay doon ah. Euh, fii ñu toll moom dutu mënu ñu indi genn gumba wala genn kii di ko teg sama kanam mu ñu jiital ba ñu dugg ci am yar kooku moom dutu ma ko nangoot waaw ah, non non lu jara xam la dama ne duutu ma ah. nangooti genn gumba ma jiitu ba may dugaloo ci pax ah. ba ma dugg pax ba pare nu ma ko génne waaye ko nangu Modou Bara Dolly bañ na netul doon nangu genn bu ko jiite euh, fi ñuy jeexalee rek moom mooy sëñ bi naka la doon tabaske ci tabaske bi ñu génn nii euh, nga xam ne donc def nañ ko ci jàmm ak salaam waaw ñu sant suñu borom tabaraka wa taala bu wér Euh, di euh, mottali suñuy ponk ci lislaam euh, mu doon loo xam ne nii mi ngi jege ci Seydina Ibrahim ñu jël cee jàngat lu bare bare muy ndigal muy muy gëm-gëm ndigal mu doon loo xam ne nii tey sun maam Ibrahima ndigal ko suñ borom joxoon wàccaat ci gëm gi nga xam parce que sëñ Mountakha insiste na ci discours bi wàllu gëm-gëm gëm-gëm boobu nag boo ko jàngatee ci suñ maam Ibrahima jàngat ko ci soxna sa Haajara jàngat ko ci li nga ka xam ne mooy Ismaïla dana la war a mën a jox lu baree baree bëri kon nag li ñuy wax mooy euh, jàllale leen ko jàllale ko ci jàmm ñaan yàlla yii di ñëw ñu fekke ko ak jàmm yaa lépp lu ci jaam guñ ci def ngir jaamu ci suñu borom it suñu borom nangul ñu ci lépp luñ ci def it pour dimbale doomi aadama yi muy wàllug social ak jàppale nit ñi yàlla ko suñu borom nangu ñan ci doon jàppale it ñu ñaan yàlla bu déwénee it ñoomit ñu mën a jàppale ñeneen ndax man du ma gëm ne nañ jàppale nit ñi dañuy ñaan tamati nit ñi ñoomit ëllëg ñu eh, ñu mën a jàppale ñeneen Euh, ndax euh, napp jën di joxe ay nit euh, wan lu leen ko dañ koy nappee moo gën te ñun suñ gëm-gëm danoo war a jàpp ne mboolem jaamee aadama doome aadama yi danoo war a nekk jàmm nekk di di ay nit yoo xam ne comme sëñ Mourou comme keneen di dimbale nit ñi pas-pas boobu lan am am moom lañ yéene it moo leen ñu jëli 28 Pro TV moom mooy site bu bees yi nga xam ne ay ndaw ñoo ko taxawal dëkk Touba 28 mu nekk nii waxtaan ak yow Euh, ana noo leen gisee peut-être seen liggéey ak yow partenaire bi ci doon noo leen di jàppalee noo gisee jeunes yooyu. maanaam rafetlu naa ko bu wér a wér ñaan naa yàlla it ñu bokk ci seeni i partenaire ca it euh, nit lii ngeen def mbir la moo xam ne gën gëm ngeen ko defee ba tey damay delluwaat ci discours bi euh, di ñaan yàlla it gëm-gëm goo gi ngeen ko defee doon ay ndaw analyser doon ay xalaat yàggit ci dëkk bi ndax seen i gëstu yàgg na ci dëkk bi ci wàllu presse ah ndax yéen ñëpp xàmmee naa lu bokk ngeen ci ñi gën a xam dëkk bi kon tey su ngeen amee yéene bu boole seen i doole ba taxawal lu mel nii leen leen di ñaanal ak ñu nit lan ca man mooy jàppale leen man sëñ Modou de pare naa pour jàppale leen ci loolu pare naa pour ñaan ko ci ànd koog yéen ñaan naa yàlla it suñu borom bu mu yem ci ab site yàlla na koy suñu borom dawal ba muy doon ab rajo wala mu doon ab télé bokk laa leen di ñaanal ca gëm naa it su ngeen amee gëm-gëm boobu du ngeen ko egg ndax doomu aadama moom eh, eh, maanaam gëm-gëm rek ci la mën a eggee ba fu ne 28 télé daal jàpp naa ne ëllëg fii ci Touba nit ñi war na noon jàpp seenu tele jàkkaarloo ak moom di ko gis gëm-gëm boobu nag ak passeport boobu am leen ko suñu borom tabaaraka wa taala jàppale nañ ci ci kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen di gërëm di ñaan yàlla déwénati di leen wan ne yoon wi bu déwénee bu ñëwaatee fii na doon loo xam ne loolu ma leen ñaanal suñu borom doon lépp daal dem incha allah ci barke jëf jërëjëf jërëjëf mbokk yi mu nekkoon nag Serigne Modou Bara Dolly Mbacké bokk ci mouvance présidentielle moom la ñu seet si woon si këram gi ci spécial tabaski dig daje ci yeneen kër kilifa